réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. jërë ngeen jëf mbokk internet yi dalal leen ak jàmm si tënkum xibaar ñu wax si ñaar ñi nga xamante ni moo di Cheikh Bara Ndiaye. ak Mohamed Sambou Jim ñu gën koo xamee si Hannibal Jim ñoom ñaar ñooñu rek ñu ngi fi nga xamante ni ñoo di hôpital principal depuis euh, boobu ba léegi ñu ngi foofu ginnaaw bi nga xamante ni nekk nañ si grève de la faim si grève de la faim boobu nag yóbbu leen fi nga xamante ni moo di réanimation ñoom ñaar ñooñu nag depuis démb ba léegi nag dañoo bañ a daal benn médecin du leen laal kenn du leen faj te duñu jël tamit daal li nga xamante ni moo di ay soins ñoom ñooñu nag ah, di ki nga xamante ni mooy Hannibal Djim ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Bara Ndiaye ñoom ñaar daal ñoo xamal ne ku xam ne nag di nga xam ki nga xamante ni daal mooy seen avocat di eh, Moussa Sarr ñoom ñaar ñooñu nag jamono ju ñu toll ni daal sonn nañ lool ba tax na daal Euh, nee nañu daal ñi nga xamante ni daal ñooy médecins yi dootuñu leen laan rawat na sax ñu leen di jam li nga xamante ni daal mooy di ay soins ñoom ñooñu nag si fàttali dañoo fekkee woon ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko daal si grève de la faim bi nga xamante ni woote woon na ko ne képp koo xamante ni daal dañ laa jàpp te yaakaar ngeen lañ jàppee du yoon maa ngi lay woo si grève de la faim bi nga xamante ni sa laa nekk